ñeenteelu poñ bi mi ngi concerné li naan commando commando la ay nit ñu nga xam ni ñoom ñoo tudde noonu seen bopp te ba ñu gëstoo l'enquête bi daa wane ni ñoom la leen soxal mooy kenn ki ki ñu wax euh, Mouramani Kaba Diakité moo ko jiitee euh, benn pàcc bi beneen pàcc bi ku ñu wax Cheikh Kébé moo ko jiitee te ñoom dañoo teg ay pexe yu nga xam ni ba ci cëppaandaw ja la ñu bëgg mooy fexe ñu nërmeel euh, euh, euh, les institutions je sais pas comment ñu ko am ñu nërmeel les institutions la ñu bëgg mooy manifester bu amee ba njaboot yi génnee ba nit ñi génn di bokk ci manifester yi ñu profiter ci daal di excrater ay engins ay ay engins la ñu bëgg mooy tamit la ñu mbëbët mooy dem nañu ba ci seen xalaat ñu wut ay ngànnaay yu nga xam ni euh, bu ko defee ñu ciblé ñu nga xam ni ay borom ndombo tànk la ñu nekk ci réew mi moo xam àttekat nga moo xam politicien nga moo xam sëriñ nga am na sax ay nit ñu nga xam ne dañu leen a ciblé ñu nga xam ne ci presse lañu la bokk. parce que ñoom maanaam daal li leen soxal mooy boroomu tur. àdduna bi yëpp dégg ko ñu dal sa kaw te lañ ci sabab mooy indi tiitaange ci askan bi ba kenn ku ci nekk li ci sa cër xamal nañ ko ci biir loolu nag ba nga xam ne ka nekk ci bopp bi biñ ko jàppee muy Murakaba Diakité ak ñaareel bi mu nga xam ne mu ngi tudd Cheikh Kébé ak ñi ci leen gën a jege. muy Famara Numpuma Mané ak ab Karim Bey ak Baba Diaw ñeneen ñi bala ñu leen di jàpp jàpp dañoo daw waaye ñoom ñëpp xam nañ leen mu ngi tollu ci fukki nit ak ñett ci ñi ñu jot xamagul ci fukki nit ak ñett ñooñu jàpp nañ ci ñeent fi mu toll jàppagul nañ ci ñaar ba ñu ngi ci yoonu di leen indi mën naa ni sax ci ñun jàpp ñu ci bëri.

baxum xamanté nañ bu baax and nañu ñaani jabar tok nañu naan atay def nañu lepp motax mom limu wax xamna ni du astaghfirullah téré bobu señ Touba daf ci wax ni di ngeen dem ba jamono jo xamni ñi wara atté deug ñoy nekk ay bandi. hmm la ko wax hmm ñu ko waxe xudaatu zamanina xudaatu zamanina am sow lu suusa Umuman fi la laa hmm. allahu akbar nee na da ngeen dem ba àtteekati jamono ji. ñooy nekk ay wëyu. <laughs> gars yi ñii façon façon tur bu nekk ñoom ñoo koy génnee quoi xam ngeen génnee nañ fi force occulte génnee nañ ci force spéciale léegi nag ñu ngi ci commando te bu leen fàtte nii euh, am na ku fi waxoon niñ koy waxee di sax ay terroriste ñom façon tour bu nek façon tour bu nek ñom ñoo créer quoi té man tour yi ñi wax ni man dama xamul fan lañ koy inspiré wu baax man dal ñi dal kenn ku nek ak sa mission hein <laughs> ah man du way wax dé du du way wax dé xam ngeen nak yeen da ngeen yab sénégalais ku wax ngeen japp ko té nday mbili gi mom mu ngi wax di jaar ci digg bi te moom mu ne loo leen ko dara problème bi foofu la nekk yéen daal coow li coow li coow li mooy waa ji moom mu ne loo leen ko dara. te ñoom te ñoom li ci gën a garaaw mooy buñ buñ buñ la jàppee dañ lay jël di la taqa ay affaire yoo xam ni ñiñ koy taqal sax am na si ñoo xam ne sax xaw xamuñu lu baat bi di firi. am na si ñoo xam ne xamuñu sax baat biñ leen di taqal lan lay tekki lan lay firi quoi. xam naa ne daal moom xam naa ne man man moom xaw ma lan lañ def yàlla ba mérito lii man daal loolu bëgg naa ko xam ko bu ko defee ñun ñu xam lan lañ def après ñu jéem a rectifier suñu erreur wala ñu jéem a changer bu dee jikko la boo xam ne ñun sénégalais dañ koo am ñu fexe jikko boobu dañ si ñun bu dee habitude la wala lu mu si mënti doon ñu toog waxtaane ko parce nag vraiment. Ờ, vraiment ñun cat topp nañu ko xam naa réew mi li fi nekk moom bu dee ay force occulte ñu ngi fi ay force spéciale ñu ngi fi ay ay ay ay terroriste ñu ngi fi léegi ay commando ñu ngi fi bu dee ñii ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci suñu réew mi moom kon ñun ñu ngi ci danger quoi te procureur bu ñëw di nga jàpp ci ñooñu kenn léegi nag ñun ñu ngi ci danger kon bu fekkee ñii ñëpp ñu ngi ci réew mi ah di nas seeni pexe Senghor ba ci ab juuf ba ci Ablaye Wade ba ci Macky Sall gisuma fi woon ñooñ ñi tudd noonu ba ci seen nguur gi ñoom ñii bu 2012 ba 2020 ba 2020 gisuma fi woon ñooñu ñuy wax léegi diggante 2022 jàpp 2023 bi ci lañ fi commencé gis ay forces occultes ay forces spéciales ay ay ay terroristes ay commandants xam naa ne fan yi di ñëw dina amaat beneen bi génnaat quoi. man daal ñëw ñooñu ci diggante ñaari at yi laa commencé gis ñu commencé xew quoi man nag dama xamul loolu depuis mille neuf cent soixante bi ñu amee indépendance ba léegi lan moo tax mosuñu fee jàpp genre nit yooyu ñu toog ba deux mille vingt deux jàpp deux mille vingt ñu commencé di leen fi jàpp man looloo ma jaaxal quoi ah waa baax na. xam naa ne daal moom nit moom ah, bu dee da nga kaa jàpp si ay manifestation yow teg ko dossier wu manifestation bu fekkee dafa wax nga jàpp ko si li mu wax mais yow dañ lay jàpp ba pare chargé la ay dossier yoo xam ne yow miñ ko chargé laa yow buñ la laajee loolu lan lay firi xamoo ko exactement ñoom daal ñuy jël seen benn mot ay commandant force spéciale force occulte terroriste ah genre dossier yu diis yooyu noonu ah, teg ko si kaw teg ko si kaw benn nit ko léegi maanaam da ngay dem ba nga xam ne benn instant da ngay da dangay da leen di seetaan ay reetaan moo lay jàpp quoi parce que <laughs> xaw la mu gën xorom mooy ngay toog di wax xanaa ah, ñi ngay waxal daanaka daal affaire ba xaw leen a def ay reetaan daal yéen xam ngeen li ma bëgg a wax quoi ngay toog nii di wax daal di wax rek waaw di wax daal. ah xool yarga mi ñuy wax ne moom moom moom lañuy moom lañ njort ne moom moo pomp moom moo pem pompe président Ousmane Sonko bokk ci Ousmane bokk si ñi ko gën a jege di patriote bu mag ñëpp xam ko gars yi ñëw naan moom mu ko pomp ñi ko pomp kay gis nañ ko ci biir euh, ci biir oto bi vidéo yi mu ngi daw si réseaux sociaux yi instant bi ñu koy pomp noonu am na ci vidéo yi gars yi dagg dugal ko ci réseaux sociaux yi quand dañ naan kan moo ko pomp mais bu leen ko jiñ yar nga waxutuma dara léegi nee nga nee na intéressé wu ci wér gi yaram président Ousmane Sonko ba si tijji ay dossier quoi waaye léegi dossier boo leen tijji pour xool wér gu yaramam kan moo ko pomp lii kay ndey mbili gi ci boppam daa war a bokk ci dossier bi doo leen ko laaj cooli cooli Sonko la quoi yéen yéen mën ngeen a jàpp Sénégal yëpp mais moom mooy seen problème da ngeen koy woo rek ne ko yow kan nga njort ne moom moo la pompe lii yow ban instant nga sentir ne pompe nañ la ko ak bi biñ la koy pompe ñan ak ñan ñoo la wóoroon boo leen paree ci moom ba mu def seen enquête ci moom ba mu jox leen ay indice ngeen topp indice yooyu mu leen jox mais tëb tëb rek dem def seen i enquête boobu jàpp benn nit ne ko yow lañ jàpp ne yow la. affaire enquête dafa am fu muy commencé ñun ñun ñun jànguñu ci wàllu woowu mais tamit xel am nañ ko quoi. am na loo xam balaa nga koy enquêter ki mu concerné dëgg da nga naan ko kaay ba mu ñëw nga ne ko ba instant nga sentir na def lañu la nangam. instant boobu nga xam ne ci lañ la pompe affaire bi yan genre personne nga sentir na ñoom ñoo la wóoroon est-ce que xàmmee nga leen instant biñ la pompé lan nga yëg ci instant boobu. nangam nangam kan nga njortu ne sax yow moom moo la war a def loolu boo ko defee nga dajale li nga xam ne moom la la wax après nag nga doog jàll ci beneen enquête bu bokkul ak bi nga waroon a njëkkee def te mooy diglu ki nga xam ne moom mooy nday mbili waaye ki nga xam ne moom lañ pompe waxulee dara ngeen tëj seen enquête quoi ne ja ngeen di jàpp yarga Yerga patriote la yarga patriote la te nday mbili gi nee na yarga dafa jël vinaigre def ko ci drapeau Sénégal jox ko ko pour mu taf ko ci bakkanam kon kay yéen enquête bi xóotal leen ko bu fekkee da ngeen bëgg xam kan moo def affaire bi rek yéen xam ngeen ko peut-être wala boo leen ko bëggee xam di ngeen ko xam mais nag Sénégal daal mu ngi nii daal. ñi nga xam ne nekkoo leen ci réew mi nag yéen a ngi ci bitim réew waaye ba ngeen ñaanal ñu daal ngeen ñaanal ñu boo leen jullee dee leen ñu ñaanal boo leen wooree ba dog jot dee leen ñu sànni ay ñaan vraiment parce que instant bi soxla nañ ko daal. waaw xam naa ne moom ñun ñun ñi ci biir réew mi ñu a yërëm lañ daal ndax dañuy dund dañuy dund injustice ba pare ah di di mooy loolu daal léeg-léeg gars yi dañuy dund sa stress sax yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,